daf ne dama bëgg tey ngeen bàkk ma ñu ne ko nuñ lay bàkk mu di nga naan ñay mënu ci daqaar dara lum gësam gësam ba ñay mënu ci daqaar dara lum gësam gësam ba ñuy bàkk mu génn na ma ñaata ma fi mag ma ne ko fukk ak ñeent xam naa yu la mag mu ne ku toog ma ku tee ma toog ci lolub Seex Ibra bu ko mën ne ko def Abdou Sakor doon Serfal da ko doon sàkk yaay debbo moom moo fa toog 1980 ba 84 gannaaw bi mu wàccee liggéey la sëñ Modou Aminta Fall jël xilaafa gi